salaamaaleykum mbokki internetu Evidence TV dal leen ak jàmm ci tënkum xibaar yi. si ñu daal di koy dooree ak wàllum politique wax ci la nga xam ne rek moo ñeel accusation corruption ya nga xam ne rek ñii di waa PDS ñu nga koy teg ci kaw juge bii di Coulibaly gannaaw ba nga xamee ne rek moo tere bokk kii di Karim Meïssa Wade ci yile élection noonee nag lañ ko daal di xamle waaye itam ñuy xamle ne moom juge bi di Kalidou Coulibaly moom kat moo libeere woon Abdoulaye Wade ci jamono ji nga xam ne rek ñu ngi ko doon tuumaal ci faatu kii di maître mii di Mamour baax moom mi nga xam ne rek bokk na ci ñi nga xam ne ñoo daal di samp euh, parti bi di euh, APR moom nag la mu xam xamle moom euh, pees la daal di bokk jamono ji la mii daal di xam ne rek moo di ne xanaa libéraux yi dañoo fàtte ne kii di Coulibaly rek moo taxoon ñu daal di libéré kii di Abdoulaye Wade ci jamono ji nga xam ne kii di maître Sey ñàkkoon na ab bakkanam teg ci naan gis nga moom mi bu doon ger rek lay topp ca jamono jooje doon nañ ko ger di ko jox rek lu dul jeex ci waaye nag taxul mu daal di ci jël lenn la mu bëggoon rek moo di daal di utiliser wàllum yoon fii ci réewum Sénégal ba daal di rek bàyyi kii di maître Abdoulaye wàdd mu daal di dellu ci ay soxlaam. ñu wax ci musiba ma am fële ca Linguère mu di rek ab lakk bu dal di dal ci ñaari xale yoo xam ne da leen a fekk ca seenub salon maanaam ca saal ba ca biir kër ga rek la dal di ah, xewe ñoom ñaar ñooñu nag ñu dal di ca jaare ñàkk seenub bakkan ah, kenn ka di wuyoo ci turu Roqaya Ndaw am lu toll ci fukk ak juróom ci ay weer ka ca des nag ah, di wuyoo ci turu Elage Ndaw am ñaari at ak ñetti weer ñoom ñaari xale yooyu nag dañoo nekkoon di nelaw ca biir salon ba ca noonee rek la kër ga dal dina jëppe tàkk ñàkk ca jamono ja nga xam ne ah, seen parent ya dal di nekkuñu woon ca biir kër ga rek balaa ñu leen di sauver rek ñu dal di amee ay gaañu gaañu yu méttee métti ah, ca jamono joojee nag ñu jël leen rawale leen ca hôpital Xaadim Rasuul bu Touba waaye nag dañoo dal di mujjee ñàkk seenub bakkan la dal di waral nag boobule incendie ah, ba tey ji xamaguñ ko waaye ñi di waa gendarmerie bu daara nag ubbi nañ ci ab l'enquête wax ci wàllum tàggat yaram ak la nga xam ne rek moo di diagnostic ba ñu def ci effectif bu équipe nationale bu Sénégal gannaaw ba ñu daal di génnee ca Coupe d'Afrique des nation bi nga xam ne rek daal di nañu toogee ca huitième de finale ya gannaaw ba leen ko d'Ivoire daal di daane mu nekk nag kaan bi nga xam ne rek ci juróom benni at yi ñu daal di génn moo nekk kaan bi nga xam ne rek moo gën a mauvais ci parcours Sénégal ci équipe nationale bi ca noonee nag ñu bi daal di ca addu tey xam le ne gis nga ñu ngi daal di nekk ci lii wàccaayub CAN 2025 bi ñu war a amal fële ca Maroc waaye réewum Sénégal nag nekk itam fii ak ñaari at di waajal lii di coupe du monde bi nga xam ne rek ñetti équipe dëkk yi ñoo ko war a organiser bokk na ci États-Unis Canada ak Mexique waaye lam ca dal di xam le ne ah, gis nga réewum Sénégal nag am na ba tey ay xale yoo xam ne rek pare nañ ngir daal di delloo équipe bi fa mu nekkoon ku ci mel ni Lamine Camara Pape Matar Sarr kii di Pape Alassane Gueye Ilimane Ndiaye musa Niakhaté ak Crépin Diatta waaye di xam ne ne ci biir mag ñi sax am na ci ñoo xam ne rek mën nañu gunge xale yi ba tey ku ci mel ni Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ak Kalidou di ñi nga xam ne ñoo nga nekk ci suuf nekk ay xale yoo xam ne def nañ seen ay preuve euh, ci équipe bu ndaw bi ku ci mel ni Amara Diouf Yaya Diémé Mamadou Lamine Camara euh, Mamadou Sané ñoom ñi ñëpp nag ñu leen di xaar rek ñu dal di dikk ci équipe A bi ñu daal di ndar keppe ak la nga xam ne rek moo xew ci Niger nga nga xam ne dañoo daal di interdit ab séjour ak ña nga xam ne rek ñoo di citoyen français yi di leen xamal ne rek bu ci kenn duggati ci seen dëkk boobee euh, capitale bu Niger nag daal na xam ne ne gis nga yooyu les décision nu jël nag autorité yi euh, daal nañ ko valider ba nga xam ne rek fi mu toll ni bépp français rek boo xam ne yaa nga bàyyeekoo ci réewu français yi doo wàcc foofee ca sol Nigeria maanaam ca dëkk boobee di fa daal di interdit ñoom ñi nga xam ne ñoo di français yi wala sax da ngay def lii di ab demande ñii di autorité demande spéciale la boo xam ne rek da koy def euh, ñii di autorité nigérien yi ngir rek ñu mën la ko nangul pour nga mën a daal di wàcc foofee ca Niger wala bokk nag nga xool beneen yoon boo mën a utiliser ngir mën a wàcc ca dëkk ba waaye nag daal nañ ko dakkal waral nag ñu bind ab note ñi nga xam ne rek ñoo di air bu Burkina ak compagnie royale bu Maroc ngir rek ñu daal di tëj lépp li nga xam ne rek mooy passage passager yi bàyyeekoo fële ca France euh, jëm si fee ca Niamey amatuñu benn droit rek ngir daal di dugg foofee ca Niger. mbokk yi lii moo fi ruuse woon ci tëngum xibaar yi tënk cant ak ngërëm ñel na leen ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf.